nettalib juróom fukkeel bi wax ci sëriñ bi ci bind xasida yi sëriñ fàddulu waa ndokk ba ñu ko fa defalee ab néeg mu ñëw di ko sanc ba mu ñëwee ba toog ca toogu ba nit ñiy coow ba mu yàgg sëriñ muxtaar si ni ku baax ki nee na woon sëriñ fàddulu nii wax ji am nag rax nañu noppi waay sëriñ muxtaar si ni am na bis sëriñ tuuba xaadalahu allahu maxtaaralahu woo sëriñ muhammadul habib mbàkke jox ko ab jukki ni ko Moodu Habib jukki bii sama borom nee na balaa maa julli timis nanga ko bind maas ko li nga ci war a def lépp nga def ko ci ne ko mbind mi nag benn saatar gi xëy na mooy aw mbind day xonq ba ca des ñuul booba sëriñ Moodu Habib moo gënoon a gaaw ci bindkat yi ba mu ko ko joxee mu tàmbali di bind ba tisbaar jot sëriñ Tuubaa qaada lahu maxtaara lahu yónni ndaw ni ko neel muhammadul habib jant baa ngi waaj muy bind ba ñuy noddu tàkkusaan mu yónni ndaw ni ko neel muhammadul habib jant baa ngi so mu dem bam yàgg jant bi lang di suufe di waaj a so sëriñ bi yónni ndaw ni ko neel muhammadul habib jant baa ngi so sëriñ moodu téye ndaw loola ba am kuy bëgg noddu timis sëriñ bi qaala la wallahu maxtaara lahu ni ko négal ba ñu jox la ndigal daa di yónniwaat leneen ndaw ba mu ñëwee sëriñ moodu jël la mu weesu ca mbind ma jox ndaw lu njëkk la jël daaja jox ko ndaw lu mujj la téye la ca des di bind akamaas jëm ci sëriñ bi ba mu yegsi lay toll ci subhaana rabbika rabbil izzati amma yasifuun wa salaamun alal mursaliin walhamdulillahi rabbil alamin sëriñ bi wax sëriñ Malick Ndiaye ni ko waxal yi ne leen dama leen a soxla ba ñu jullee ba sëlmal sëriñ bi ni ana fere yi ñi ngi fi ñu ni ko ñi julli si woon ñi ngi fi sëriñ bi daa seet mbind ma bu daan seet am mbind du ko ubbi du xool li ci ëpp day jël téere bi teg cib noppam su ko defee xaraf wu ci nekkul ne ko man xaraf sàngam nii laa waroon a mel bërëb sàngam laa waroon a nekk ba mu dégloo déglu déggul wenn xaraf wax dara mu ni moodu xabib saa borom nee na wàcc nga wàcc naa moo ci des daldi ni fépp fu ngeen fi gis lu baax walla lu rafet sama dindug kaw suuf tuubaak njaareem ak sama xaside yi ñoo ko fa indi nun nag àdduna danoo taxuta jóg waaye li mu nuy tee tee jóg lu fi xaj des na leen ko fi indil bu ëllëgee ba nit ak jinneeg malaayka teew sunu borom dana yëkkati sama mbind yi ni ana kan moo wax li rasulillahi sallallahu taala alayhi bi alihi wa ma ni ko maa ko wax mu jàpp sama loxo yóbbu ma fa ko soob ne ma yow doo fekke li may defanteeg sama mbindeef yi del si yoonu ñaareel ni ana ñi nga xam ni mënuñoo taalif te mën a bind ñu ni ñoo ngi nii mu ni dikki du ngeen fekke li may defanteek sama mbindeef yi del si yoonu ñetteel ni ana ñi nga xam ni mënuñoo taalif mënuñoo bind te mën jàng ñu ni ko noo ngi nii mu ni dikk leen du ngeen fekke li may defanteeg sama mbindeef yi delsiwaat yoonu ñeenteel ni ana ñi nga xam ni mënuñoo taalif mënuñoo bind mënuñoo jàng waaye daanañu fab seen xalal di ko ci def ñu ne ñoo ngi nii mu ni dikk leen du ngeen fekke li may defanteek sama mbindeef yi delsiwaat yoonu juróomeel ni ana ñi mënta taalif mënuñoo bind mën ñoo jàng amuñu lu ñu joxe waaye daana neex fi ñoom ba jaral leen fanaan fa ñu ne ñoo ngi nii mu ni ñëw leen du ngeen fekke li may defanteeg sama mbindeef yi wér na sëriñ muxtaar si moo doon nettali waaye lu mu wax ba ni mu àggale sëriñ fadlu day wax ca kaw moo ko wax de wallahu alam sëriñ muhammadul habib mii doomi maam cerno la mook sëriñ abdul xuddus ñoo bokk ndey radiyallahu anhuma wax nanu ne bind na kaamil yu bari naka noonu xasiday sëriñ tuuba qaada lahu llahu maxtaara lahu ak ay taalifam daa féete woon ca kër sëriñ bi sëriñ abdul quddus radiallahu anhu nee na mës na koo fekk muy bind mu xàmmee ko te moom xàmmeewu ko booba daa jëm ci sëriñ bi mu ni ko kooku du abdul quddus mu ni ko axakay mu ni ko foo jëm mu ni ko ci sëriñ bi mu ni ko mbaayor yor nga loo ko nuyoo kooku kenn du ko nuyoo loxoy kese mu ni ko déedéet mu génne benn dërëm jox ko wallaahu aalam bokk na ca li ñu jànge ci nettali bu gudd bi nga xam ni lépp màggu xasida yi sëriñ Tuuba lay tegtale xaada lahu bi ci njëkk bu taalif jàllee bind moo ci topp ndax ki xalaat ci am xelam ba noppi bind kooku kenn mënu koo féete kaw waaye bu jàllee kenn mënta féete kaw ki koy bind ndax day mel ni mokki moo taalif xalaat gi moo leen wuutale ci zahir kii jàng itam day mel ni bu mënoon a bind dana bind waaye da ko mënul muy jàng naka noonu kii déglu itam day mel ni daa jàng waaye kon mu koy def kiy joxe itam noonu war na bépp murit nag muy fexe boole ñeenti yépp te mooy di bind ay bayit donte fukk ñaar la ci yi sëriñ Tuubaa qaada lahu llahu maxtaara lahu tey jàng donte téeméeri way la ci bis bu set tey déglu bis bu set donte benn band la tey joxe donte benn dërëm la ñaareel bi ba tey danañ xam ni sunu borom subhaanahu wa taala yëkkati na lool yonent bi sallallahu taala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama ndax daa wax ne ana kan moo wax lii rasulillah nga xam ni màggug yonent bi sallallahu taala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama moo waral kenn laajul bindkat yi ak jàngkat yi ak déglukat yi ak joxekat yi ñetteel bi ba tey xam nañu ne am mbind fàww ñu maas ko mu door a mat kon ku bind te maasu ko manqué na su ko defee ka ko maas moo ko mottali ñeenteel bi ba tey yàkkamti ak farlu bokkuñu gis nga sëriñ Modou Habib li ko sëriñ Tuubaa xaala lahu llaahu maxtaara lahu di soññ lépp taxul mu yàkkamti ndax bu yàkkamti woon fàww bu ko sëriñ bi seetee mu am ay njuumte waaye daa doon farlu te mooy fexe ba loxoom ak itteem bañ a jug ci liggéey bi ndax kat yàlla ma koy deflu subhaanahu wa taala moo wax ni inna kulla cheyin xalaqnaahu bi xadar lépp lu nekk wutal na ko ab ab loolu moo tax yonente bi sallallahu taala alayhi bi alihi wa sahbi wa sallama naan yàkkamti ci seytaane la jóge ndax sunu borom subhaanahu wa taala bu fekkee bind na lépp ci ab app nga xam ni su ca aggee sotti seytaane day fexe ba bu loolay sotti du rafet te mooy dalay yàkkamti loo wallaahu aalam